Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ba lépp loo xamante ni ñoo ko fi wax yàlla na bu mu doon lu nuy xeebe encore une fois yàlla na wax lépp loo xamante ni rek mu ngi jëriñ askan bi aussi di jëriñ public bi nga xamante ni ñoo ngi déglu je pense loolu dafay am solo trop trop trop. bon mënuma départ aussi ci waxtaan te duma départ ci diaspora bi encore une fois di ziar waa diaspora bi yëpp nuy ñaan gars yi ñu partagé ko di ziar waa diaspora bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ci seen taxawaay mais di ñaanal sama pap sama xarit sama idole Ousmane Tounkara yàlla defal ko jàmm fa mu nekk. ba mu mm-hmm. gaaw a génn mm-hmm. tey incha allah dina am. loolu moom cuñ ci tëddee dañuy nelaw wallahi la azim dina génn ci nii wala dina génn ci nee ndax it toujours la ma doon wax rek manuma ci ñàkk bañ a wax mooy état bandi moom boo ko yoree saa su ne sóoraaleel lu ne saa su ne sóoraaleel lu ne ci boo nekkee ci état boo xamante ni état bandi la maanaam état bandi ni ko Pape Ndiaye di waxee ci lépp loo xamante ni norme la bu war a tegu ci état te mu signé ko doon ay convention yoo xamante ni dañ ko signé bu ca nekkul rek état bandi lañ koy tuddee kon Ousmane Tounkara dama koy waxati encore une fois. yéen daa ngeen ko may jàmm ci nii wala daa ngeen ko may jàmm ci nale billahi wallahi te jàmm rekk lay am mais comme si que yéen seen yéene moo di képp ku àndul ak yéen seen yéene moo di képp koo xamante ni bokku ak moom gis-gis rek nan ko faagaagal yéen déjà seen objectif lool la fekk àddina doxawul noonu gis nga yàlla bi mu bëggee noppal Muhammad xam nga lu mu ko wax af ni que laa ikraha fi diine qad tabayyana rusli min al-ghayy non c'est la peine Muhammad nga leen di forcer pour bëgg loo xamante ni daf may satisfaire ñoom ci ñoom non non non ji amul forcer te it ku ne xam nga ni diine mooy valeur bi nga xamante ni mooy jëriñ nit fii mais mooy jëriñ nit àllaaxira mais yàlla dafa promettre yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko diine ji amul forcé maa ngi ziar soxna Jatu maa ngi lay ziar maa lay ziar bu baax a baax a baax a baax di kontaan ci yow bu baax a baax a baax a baax gars yi ñu partagé ko rek daf ko exemple wane ni diine ji amul force kenn war ci force kenn cest à amul force kenn war ci force kenn mooy kenn war ci force nit ki ni que danga ci war a dugg mais ndegam yàlla madame Girard maa lay ziar maa ngi ziar madame Girard ndegam yàlla moo defal loolu moo taxawee noonu ci yenent bi mais asatanaak nit ki nga xamante ni nag dafa am gis-gis bu gën sa gis-gis ni la bokkuma ak yow doxalin bokkuma ak yow gis-gis kon sa objectif moo di yow nan ko sànq mais gis nga koy làmb di nga di lamb di lamb ba lamb lootul daat ba lamb loo xamante ni dootoo lambati mukk parce que wax naa leen di leen sama live deux mille vingt yi waxoon naa leen di leen Macky lu mu bon bon bon bon bon bon bon bon jógee sànn bu fi dee jógee ak ni mu fi jógee ba ci dix-sept personnes dana ko yóbbu parce que booba xam naa ni billahi wallahi taala yi booba xam naa ni am na ci biir ñi muy yóbbu am na ci koo xamante ni buñ ko xasee ba laal dootuñu laalati kenn moo tax ci biir xale yi dee laal nañ ci koo xamante ni <laughs> am na nu muy demee sax xeex bi da koy ëpp maanaam 17 personne yooyu da koy ëpp ci moment bi parce que fa mu tegoon tànk démb ak barki dem day jéem a gée ay plan rek mais ba léegi changé gul kon Ousmane Tounkara ngeen bëgg ngeen ak bañ daa ngeen ko bàyyi ci nii wala daa ngeen ko bàyyi ci ne parce que yéen même si que bu fekkoonte ni am ngeen xel nite ngeen. da ngeen xam ni ñoom ñu nekk foofu ak jàmbaar yooyu bitim réew jàmbaar yooyu fa nekk nga xamante ni tey mënoon nañu tëdd ñu ngi liggéey guddi ak bëccëg suba ak ngoon même bu ñu liggéeyul ñoo ngi am loo xamante ni ñoo ngi ciy suturlu ñoom mënoon nañu tëdd rek ni suñu yoon nekkul ci Sénégal parce que li ñu bëgg am ñoo ngi koy am. mais tey yàlla dimbali leen ñu gëm ni ñi suñu Sénégal gi war naa développé développé ku day na ko war naa développé développé ku day ne ko tubaab yi bare na si loo xamante ni ñun am nan ko te ñoom ko mais li fi des mooy nanu yee sunu askan yéen nag ngeen ni bëgguleen képp ku yee askan wi bëggu leen kenn ku yee askan bi parce que seen bonte seen soxor seen iñaan ak seen jàpp ni yéen kese war a dund yéen kese war a jiite yéen kese war a te yàlla bi muy bind addina bi bind ko pour yéen kase te bi ngeen fii ñëw dafa am ñoo xamante ni da ngeen leen fi fekkoon te amaat na li ngeen di def askan bi ñooñu bu fekkoonte ni moom lañ leen def kon tey du ngeen toog fi ngeen tey du ngeen toog fi ngeen xamante ni fi ngeen di toog ñi ngeen di bundu tey li ñu participer ci seen ñëw fii li ñu participer ci seen ñëw fii amaat na participer wuñu ko sax ci am lay Wade waaye dama waxoon ni jaaxaan di saw képp ku koy def ku nekk bala lal ma di tooy mën nga cee ëpple lal ba ala kulli ali ala kulli ali ala kulli ali kon Ousmane Tounkara daa ngeen ko bàyyi ci nii wala daa ngeen ko bàyyi ci ne loolu moom damay wax gars mboolem koo xamante ni yaa ngi def live il faut union c'est la force il faut que nu jàppoo il faut que ñu jéem a xool naka la ñuy organiser woo loolu il faut que mu leer ñëpp il faut que ñu jéem a xool naka la ñuy organiser woo moo xam ñi nekk bitim réew moo xam ñi nekk fii nga xamante ni ñoo ngi ci Sénégal parce que union c'est la force loolu benn parenthèse la woon parce que man waa def live te duma ko dugal ah deuxième ba moo di am contenté. am kontante ci tey li Matam wane ah Matam ari de yoo Matam ari haali ka gonga Matam ari ka bandiraɓe sehilaɓe ka matam ari yo matam ari a jarama a jaaraama a jaaraama a jaaraama tey wane ngeen ni wane ngeen ni ki fi toogoon naan Matam sunu titre foncier la wane ngeen ni que ñun da nu fekkoon ñuy nelaw ngeen pikiir nu pikiiru dorog parce que partout Sénégal ñëpp xam nañ ne Matam moo gën a dellu gannaaw ci réew mi partout ñëpp xam na ni Fuuta gën a dellu gannaaw kaay nu dellu gannaaw te je que dafa participer si ñoxor dafa participer si joge yi li nga xamante ni moom tey moom lañ ko samp fii ci réew mi kon wane wat ngeen ni yéen tamit Matam ñi leen di jéem a dugal ci affaire yu ethnie wane wat ngeen seen bopp ni nekku leen foofu tey dafa am ñoo xam dañ leen doon dugal ci wàllu ethnie bu ngeen taxawul woon taxawaay bii kon dan nañuy jaaxal loolu tey bu boobaa dina yomb réew mi sax pour tàkk pour réew mi tàkk lu yomb lay doon mais wane ngeen ni du jaagiri affaire ethnie li leen intéressé mm. mooy réew mi te it wane ngeen ni dañ leen doon nax comme ni ñu doon naxe ñun kon ni ñu doon naxe kon mënunoo def lenn lu dul jaaraama leen wane leen ni leen mbir mi le combat continue parce que it bu fekkente ni kii nga xamante ni mooy jógee dafa taxaw ni Matam mooy sama titre foncier wala Fuuta mooy sama titre foncier te Fuuta gën a yées ci réew yi amul liggéey du hôpital bu baax ah du hôpital bu baax man nga ni du ambulance bu baax amul du ndox mu baax xam nga tey su ma déggee ndaw si doon def conférence de presse di wax ni chef de village dee na fa homme de politique wala maire bi sax moo mujj taal otoom dem ba génn dëkk bi jënd ci benn bitig ñaari biteelu kireen ñu koy doog a sang xaysubillah loolu avec ça ñu ne réew muy dox mooy mel noonu te yéen Fuuta lu ngeen ñàkk yéen lan ngeen ñàkk ñàkku leen dara lu dul leader yu bon ngeen ñàkk lu leen nit mën a wax lu dul leader yu bon ngeen ñàkk rek amul lenn lu ngeen ñàkk du suuf du ndox du dara du jur du dara fa tabaarakallahu lépp yéen a moom mais ndax da ngeen di continuer ci vocation bi nga xamante ni moom lañ leen teg di leen utiliser guddi ak bëccëg suba ngoon te seen ay moroom yépp yeewu yéen ngeen ne làkk fi ngeen nekk ni du ngeen yeewu ci seen bopp amul kenn koo xamante ni mën nga ni une semaine di nga ko def fuuta amul kenn koo xamante ni ñeme ngaa def une semaine fuuta parce que bëgguloo ko bëggoo sax boo deewee ñu suul la fuuta ñooñu nag ñooy ñëw ci yéen guddi ak bëccëg suba ak ngoon di leen wax loo xamante ni wala di leen dig loo xamante ni dib nañ leen ko pendant di ay yoonu yoonu yoon yoonu yoon yoonu dama ni sept ans képp koo xamante ni toog nga ko wala neuf ans képp koo xamante ni toog nga ko bu la defalul dara bu la waxee ni trois ans yi man na la ci defal dara ça c'est pas vrai waxul dëgg lan lañ leen mën a defar non dis-moi vérité lan ana lan lañ leen mën a defal xaalis bii ñuy waxaat te joge yi di wax xaalis bii nga xamante ni moom la joge yi di wax trois cent soixante quelques milliards yi billahi wallahi taala yi seen biir lay duggaat parce que ñoom ñëpp fi lu tollu nii. ku si nekk yaa ngi jéem a fexe parce que ñenn ñi moo xam ministre moo xam DG seen taat yi toogatul kenn ku si nekk yaa ngi jéem a xool lépp loo xamante ni moom ngay mën a def ba yow li nga yore nga rawale ko ak li nga xamante ni moom nan lay joxaat wala yaa ngi jéem a teg ay plan yoo xamante ni wala ay projet yoo xamante ni après lépp seen kaw lay xëpp xëppuwaat mm-hmm. Mm-hmm. kon li ñuy wax ça c'est pas vrai. li ñuy wax dóor ci doon dëgg parce que lépp seen seen biir lay dellu soit mais depuis Macky Sall la hmm. toog fi hmm. ak léegi ñaata at ak ñaata milliards lañ ko voté ci ay ministre ci wàllu jeunesse bi ana lan mooy li ci avancé ana li ci avancé ana lan la nga xamante ni moom la jeunesse bi gis seen bopp ana lan amul lenn loo xamante ni jeunesse bi gis na ci boppam wala réew mi gis na ci boppam lu dul ñi nga xamante ni ñooy nasaraan yi waa kër Macron ñoom kese si gis seen bopp mais ndax dañuy toog ñuy continuer noonu dina nax comme ça ni moo tax waxoon naa ko ci sama live yi jëkk yi dama leen ngeen xooli ko waxoon naa leen nday ju fi toog di dem di dem ba sa doom mënatul normal nekk caga di fayeeku joge moo ko teg barke Seydina Limaamul Mahdi ndey ju fi toog ba sa doom di agressé ah jogay moo ko teg diplomate bu fi nekk yor say diplôme jàng ba ni ar mënoo am liggéey mënoo am lenn loo xamante ni moom nga def kenn tegul ko ku kudul jogay moo tax bu ñuy wax naan na élèves yi toog seen école yi ñu jàng ma ne dañ leen di nax élèves yi bu gaa yi dee génne ni leen génn da ngeen di génn yéen parce que yéen yéen a ci tollu yéen yéen a ci tollu gis nga bu fekkente ni génnu leen xeexu leen ko bu yowmal xeex jotee xoolal fi ngeen di jàng ba yor seen diplôme du ngeen am dara lu ngeen liggéey fi ngeen di jàng ba yowmal fayee jot fay jot xool du ngeen am dara lu ngeen fay du ngeen am dara lu ngeen inscrire parce que seen papa du ko am seen yaay du ko am seen mag du ko am amul kenn ku leen ciy dimbali ñoom seen doom di dund naataange guddi ak bëccëg suba ak ngoon xoolal xoolal xoolal lu day nag Mansour Faye mi nga xamante ni tey jii mën naa ko cité maire Ndar Mansour Faye si cigarette si la daan liggéey yàggul dara ci at yii avant Macky Sall di toog cigarette la daan liggéey cigarette usine cigarette bi la nekkoon tey fu mu mën a dem ba doomam di jënd hôtelu cent et quelques millions. dinaa ci ñëw cent et quelques millions gars yi hôtelu cent et quelques millions doom joo xamante ni man nga ni sax amagul sax amagul sax formation pour mën a liggéey dara ndax Mansour Faye dafa donn milliard ci baayam wala ci ndeyam ndax Mansour Faye dafa donn dafa mos a liggéey milliard wala ay millions ci ndeyam wala ci baayam mosul am mosul am loolu dinaa ci ñëw dina ci ñëw parce que it ndar googu ñun la concerné ndar gi ñun la concerné te it dinañ ci ñëw muy benn kontaan boo xamante ni kontaan naa ko ci waa Fuuta ñaareel ba moo di li naan waxoon naa leen que kër njugub dana lakk dana lakk lakkaala kër petax lakk ba lakkaale laal ba laal la loo waruta laal moo tax tey bi ma gisee seen assemblée général Pikine ñuy xeex mën leen gisagulee dara seen combat yéen lenn rek na leen di xamal nag lenn rek na leen di yégal parce lu ngeen kupp ñu baatere ko sañ ngeen fii génn ndax ñeme ngeen yàlla ñame yàlla gu day naka sañ ngeen fii génne nit ñi ay nit yoo xamante ni bokkuñu ci yéen yoo ñëwoon di yàq seen assemblée général sa ngeen lu dul loolu parce que fen rek ngeen di def fenn rek ngeen di def sañ ngeen lu dul loolu waaye lu ñu fàng kenn du ko jeex lu fàng kenn du ko jeex sañ ngeen nag lu dul loolu mais ñoo leen di xaar parce que du dugg suñu nopp te du dugg ci nopp sénégalais yi ah fi ma bëgg ñëwaat mooy journaliste euh, Aline Diagne macha allah journaliste bu nu bu nu naw man dama ko naw ah Aline Diagne dama ko naw ci ay jàngalam ay ay ay ay xalaatam ay xaymaam ci lu bare dama ko naw tey dan ma woo ni ma seetaanal euh, benn keset sax lan ma envoyé du sax seetaan kooku moom bon seetaanatuma ko quoi muy Aïssatou Diop Fall man du ko seetaanati bu dul an ma envoyé ni ma xoolal lii du ma ko seetaanati quoi parce que mooy jigéen ñooñu nga xamante ni tey amul lenn lu nu mën a concours si jigéen amul lenn lu nu mën a concours si jigéen ba mu bokk si jigéen ñi kooku xam nga doo xam góor la doo xam jigéen la parce que it mënoo xool kanamam ba xam ni jigéen la ndax it ni kanamu jigéen war a mel kanamam melu ko muy benn ni lexu jigéen war a mel lexam melu ko ni weenu jigéen war a mel weenam melu ko ni taatu jigéen war a mel taatam melu ko kon kooku moom yàlla def na ne xam nga amul lenn loo xamante ni mën na koo def sax si jigéen wala bu doon concours jigéen jatu xam naa ne di nga xam li may wax bu baax a baax a baax a baax bay saf jigéen xam nga bay saf jigéen sax doon koo xam day saf jigéen ba nu mën kaa boole sax si jigéen ñi xëy na am ween ak am kii ak yooyu moo tax sax ñu mën kaa boole si jigéen ñi mais bu du woon loolu duñ ko boole si jigéen ndax kenn xamul ban marque la moo tax man du ma seetaan sax ay kiiwam ak yooyu mais dan maa waay benn kii si Aline Diagne Aline Diagne am loo xamante ni daf ko wax ci Ousmane Sonko mu nekk cinq points mu nekk cinq point gars yi Aly Ndiaye dafa nii Ousmane Sonko daf ko jaaxal ci dafa am débuté bi muy ñëw dafa am yoo xamante ni cest à daf ko doon gondi daf ko doon gondi ci waxi mais dafa mel na ko yooyu mu doon gondi di wane ni moom la nekku ci dara Aly Ndiaye loolu la wax jotu la bind Dior <laughs> maa ngi lay ziar <laughs> ok madame Girard ñoo ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax a eh, jot jotal naa ko sa yóbbante madame Girard ñoo ngi koy ziar bu baax baax baax joor <laughs> yoo xamante ni daf ko wax bi si njëkk moo di Alioune Diagne dafa wax ni li ko jaaxal mooy Ousmane sonk dafa ni woon Ibadula Alioune amul benn seket boo mën génn benn trace boo mën a génne ku mën a génn rek dimbali ma nga envoyé ma ko fu Ousmane Sonko taxawee wax ni ibaadu la Ousmane Sonko yàllaa ko def ibaadu xam nga kañ ba mu juddoo ci ñaari jullit ndeyam di jullit baayam di jullit mu màgg mesure confirmé ko muy ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa aqimu salata wa atiu zakata wa zawmu ramadan wa hajjul baytillahi cinq yi ku ko confirmé rek ibaadu nga comme Alioune yow ni nga nekk amul fenn foo xamante ni moom ngay mën a génn mu nekk benn lekkitu vidéo booy mën a jàpp ni Ousmane Sonko muy benn dafa am benn conférence benn euh, ndaje bu Ousmane sonk doon def korok may nu ma nduur fay moo ko laaj astafurlah Cheikh Yirim Seck moo ko ci affaire ibadook xam nga tarixa yeeg affaire yu mel noonu korok si la Ousmane Sonko wax ni loolu amul solo parce que nit ki fi mu bokk ak fi mu ñàkk bokk amul solo am solo mooy jëfu nit ki parce que bu fekkente ni defar réew mi mooy dañ ko yaakaar ni si jullit bi nanu jëli jullit bi mu ñëw defar réew mi bu fekkente ni defar réew mi dañ ko yaakaar ci chrétien bi nanu jëli chrétien bi mu ñëw defar réew mi bu fekkente ni donte tarixa la defar réew mi dañ ko yaakaar ci benn tarixa nanu dem jëli tarixa boobu mu ñëw defar réew mi muy benn doo ko génne Aliou li ma lay respecté yépp di la déglu doo ko génnee kon waxul foofu loolu muy benn dama seetuwaat information ñaareel ba nga ni Ousmane Sonko nee na salafiste la waaw si si si bala may ñëw ci ñaareel bi sax parce que li nga bëggoon a wax moo di si sa biir wax li nga bëggoon a wax moo di comme sàkk ibaadu la jigéen waru ko laal warul dem ci salle de massage loolu nga bëggoon a wax Ali yeneen bi alayhi salaatu wasalaam dafa am lu mu wax ni dafa ni yàlla def ma yónni ngir ma yombal waaye yàlla yónniwu ma pour ma jafeel xam nga looy dégg wax ji mooy tey am na ku nekk hôpital ñu koy opéré mais pikiir ban koy pikiir pour mu nelaw demal nga gëstu lan la ak lan la moom jullit la moom mi ni opéré jullit la mais dañ ko war a pikiir pour mu nelaw pikiir boobu demal nga làcc ji lan ak lan lan ko defaree am na lu ca nekk loo xamante ni bu nit nit nit dara jotu la lislaam daf la ko aaye waaye si que mën na la def li ñu lay def pour sabe sa bakkan lislaam daf koy daal di nangu sa jabar tey bu nekkoon en état jullit la yow jullit nga nga fekk fa jigéen góor goo xamante ni tey ci hôpital bi wala ci fii nga xamante ni mooy kilinik bi moom moo war a seet sa sox ma bi nga xamante ni nekk naa en état wala jigéen ji nga xamante ni nekk naa en tax ndax dangay toog naan que l'islam daf ma ko tere ba dooma rawale wala dooma kii bu boobaa lépp lu ci am lu nekk même boo deewee da nga xam parce que l'islam santu la loolu kon mooy Ousmane Sonko li nga doon bëggoon wax mooy Ousmane Sonko bi mu demee sa salle de beauty ba sala la jaaxal muy salle de massage ba déedéet dafa doon faju ju loolu bu mu la jaaxal wala nga dem nga laaji sa sëriñ wala it fa baais kitaabakum ngeen gëstu seen téere rek ñu xool ñaareel ba nga wax ni salafiste la moom nee na la je pense que salafiste moo di ñi nga xamante ni tey jaaxal na la yow pour mu am sëriñ nee na sëriñam xam nga mu nee na sëriñam murit laak yu mel noonu te it kon wax jooju teg teggeeku na ma la moom Ousmane sonk mosul wax ni salafis la xam nga kan moo doon wax naan salafis la ki nga xamante ni barki démb Ousmane Sonko seeti woon na ko te mënoo ko boole hawulaay muy kii nga xamante ni mooy Ahmed Khalifa Niass moom moomu ci boppam mooy ki nga xamante ni moo doon wax naan dafa bokk ci daayis ak dafa bokk ci salafis yi Sophie ziar naa la Sophie Sophie Touba maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax si di am kontante moom moomu moo waxoon loolu kon Ahmed Khalifa ah Ousmane mosul wax ni salafis la. waa léegi sax même bu fekkente ni salafiste la ndax nekk salafiste daf lay tax nga bañ a am sëriñ ndax nekk salafiste daf lay tax nga bañ a am sëriñ déedéet Seydina Ali karamallahu wajhahu xam nga lu mu wax dafa ni man allama arfan fa huwa mawlaaka képp ku la xamal rek sa sëriñ la képp léegi ma jox la ma jox la exemple bi damay gars yi maa ngi ñëw ci histoire bi ah kii wul woon sax mais dama koy jox exemple rek korot bi Serigne Touba demee géej te mag ñi toog diir gisuñu ko dañu dem ci Cheikh na Cheikh Saddu ni ka dañu bëgg nga liste xaaral nu xoolal nu si sa barke maam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam parce que Ahmadou Bamba dafa dem géej te booba ak léegi déggunu ci moom dara lu leer ñu bëggoon nga xoolal nu gis nga koraat bi nga xamante ni Cheikh na Cheikh Saddu toog na fi mu toog dafa woo taawam bu nuy wax Cheikh Sidi Bouya maa ngi ci baatu Serigne laa lay leeralal dafa woo taawam bu nuy woowee Cheikh Sidi fooy tekk ci diggu gannaawam ni bismillahi rahmaani rahim qaala Cheikh na Cheikh Saddu ila Cheikh Ahmadou Bamba xoolal ilaa cheikhi bamba bismillah maa ngi tàmmalee ci yàlla man cheikh na cheikh saddu mii yaa ngi dégg di wax ak kooku nga xamante ni mooy sëriñ bi di cheikh ahmadu bamba ndax dafa tax mu doon sëriñam ndax dafa toog dafa tax moom cheikh na cheikh saddu sëriñ tuubaa doon sëriñam ba mu ko wax naan ko maidat radat maidat ujilat minhu nasara fa asbax fi tilkal buxuuri nudaara ndax dafa tax mu doon sëriñam déedéet waaye xoolal fi mu ko teg parce que pour bañ a guddal foofu parce que loolu beneen détail la pour bañ a guddal ci loolu gis nga bi ko sëriñ Cheikh na Cheikh Saddu tegee ci gannaaw Cheikh Sidi Bouya bind ci gannaaw fooy bi li muy bind ci bi muy ndëppar ñu fooy bi la ko sëriñ Touba tontu naan ko bismillahi rahmaani rahim qaala Cheikh Bamba ila Cheikhina Cheikh Saddu abi naan ka maa radatnaahu ila manzilatin qabla daar waaye xam nga li ma ci soxla mooy salaaman ala cheikhul suyuuxi allazi lahul maqaama rafihu fa huwa laysa yubaara gis nga salaaman ala cheikhul suyuuxi la nga Serigne Touba tontu ndax kon dafa tekki wat ni cheikh na cheikh Saddu moom mooy Serigne Serigne Touba wax dañ koy dégg wax dañ koy dégg Ousmane Sonko ba léegi kenn toogagul usman Sonko ni la jébbalu naa ci tariqa sangam. mais sëñ ñaa am sëriñ nag parce que ku jàng am sëriñ ku jàng am sëriñ fekk yaa ngi dund képp ku la jox leçon boo xamante ni jëriñ na la rek sëriñ la da ci yow la ci yow kon loolu dama bëgg mu dugg sa nopp yow mi wax Aline dama bëgg loolu mu dugg sa nopp ñaareel ba muy ñetteel ba nga ni Abdoulaye euh, ci biir élection yi Ousmane Sonko dafa waxoon ni Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade dañ leen war a fiché parce que lu yàq Sénégal ñooy responsabilité bi ci nin ko mën a waxe waaye ndax fiché bi dafa tekki ni dañ leen war a fekk fan leen di fekk rey leen mooy seen idéologie tubaab bi nekkoon ci ñoom. ñoom moom na nu rey seen idéologie tubaab bi nekkoon ci ñoom ñoom moom na nu reyee te idéologie wu tubaab boobu donte lay Wade def ko départoon mais génnu mandaawam ku ne xam nga ni idéologie boobu nekkatul si lay Wade moo tax français yi xeex ko moo taxoon mu jële fi armée France jëlee fi base militaire de France kon foofu lay waxe waaye seetiwul lay Wade pour mu ànd ak moom bu fekkee daf ko seeti pour mu ànd ak moom gars yi li passé woon ma ngi fi Aline nga andil nu it lu firndeel lu mel noonu moo xam ci déclaration wala vidéo kon loolu amul quatrième bi nga ni xaalis bi nga xamante ni moom lañ doon defee nemmeeku de tour ndax it toujours waxul leeral ak yu mel noonu Ousmane Sonko daf koy soxla te xaalis boobu ba léegi gisaguñ ko ma ni waaw ba tey gëstul rek gëstul rek gëstul ba tey yooyu doonul problème gëstul ba tey rek amul problème gis nga nemmeeku de tour bi bi mu amee bi mu amee la nooxóor yu mag nekk ci réew mi jaafur nemmeeku tur bi bi mu amee la nooxóor yu mag yi nekk ci réew mi xoolal jaafur parce que duggul li leen jaaxal mooy vingt-quatre heures bi na am wala matul sax 24 heures ñu bëgg fi am nangami centaine di million loolu dafa doon loo xamante ni daf leen jaaxal ñu ne ah waa ji nag buñ ko fakastalul yow xam nga ni booba ca la ministère de la de de intérieur attanu ko moomu ah ministère de l'intérieur attanu ko ci la toog génn communiqué deux heures du matin ba yéen ngeen ciy wax ba yéen ngeen ciy wax. mais ñu nekk ci loolu nag di ko lijjanti ñu andilaat nu affaire aji saar te nag waxoon nañ leen ki nga xamante ni moom nañu dénkoon loolu mu yore ko ci RFM avant problème aji saar bi di door bi ko Babacar Fall invité mais lu mu ko wax ñoo ngi ci correcté wu di réglé bu nu demee ba pare ñi nga xamante ni ñoom la seqal mbir yi mooy suñu partisans ak ñi nga xamante ni ñooy suñu ay militants ak ñi nga xamante ni ay bonne volonté lañu daan leen wax ni leen lii nanu am lii ak lii ak lii lan ciy def loolu jarul yàkkamti jarul yàkkamti parce que léppay leer non avec Ousmane sonk rek dara du lëndëm su nga ni ma koy leerale benn par benn te may ki gën a doye di ci gars yi xoolal avec ñoom rek les Pastef voilà <laughs> barki Seydina Limaamu léppay leer dara du ci lëndëm loolu na leer nañ sa nopp ñetteel ba nga ni démocratie démocratie dañuy woote démocratie te it boo waxee lu àndul ak ñoom ñu saaga la wala ñu menacé ba ci élection yi doon nañ fi menacé ay rajo wala ay télé xam nga defam am lu ñuy tuddee bataille psychologie dafa am lu ñuy tuddee bataille psychologie dafa am fu mbir du toll il faut que da ngay andi sa bataille psychologie ko ñu def la jukkay caay-caay sinon gis nga RFM gii RFM mën naa la waatal ci yàlla ni groupe Futurs Médias masuñu bëgg Ousmane Sonko mën naa la waatal ci yàlla ni la groupe Futurs Médias masuñu Sonko <coughs> groupe Futurs waatal ci yàlla ni seen euh, euh, comment adresse 2STV borom mosul bëgg Sonko parce que nag li may wax ay firnde laa leen jox li may wax ay firnde laa leen di jox ay fee yu leer naññ laa jox su amul rek gaa ma amul numéro baa ngi noonu su amul rek ne ma amul groupe Futurs Médias man naa kitaabu ci yàlla ni moo suñu bëgg Ousmane Sonko mais nag yi nu bokk jaar ak yi nu bokk def ñoom si seen dañuy woow dañuy woote ni ñoom dañu ay parenthèse la ñuy sa ça pas vrai entrez loolu dara bi ci dëgg loolu dara du ci dëgg mësuñu ko bëgg ci tout le ci doxalin lépp mësuñu ko bëgg mësuñu ko nekk mësuñu ko doxe mësuñu ko doxali léegi nanu xool seen at suivre yi yépp mais barki démb bi xale yi di toj di dóor di sakasi di wane ni la <laughs> ilaha illallah upp baax na ci laax bu tàng upp yoo baax na ci laax bu tàng te it fu lay jaay daqaar lu ko mooy rek ma ñam jeexal nga gis leen nga gis leen ñu am benn recul boo xamante ni moom la def parce que xam na ni lu ñu doon nekki du dëgg soo xoolee Aïssatou Diop Fall soo xoolee ci seen programme da ngay xam xam ni y a des changements upp baax na ci laax bu tàgg dafay baax deuxième moom El Hadji Ndiaye El moom ci boppam moom Ousmane Sonko sax tax mu dàqal Pape Alé Niang ay yoon yooni yooni yoon loolu yéen gis ngeen ko ñun gis nañ ko kon ñooñu mu bëgg Ousmane Sonko ñooñu mënoon bëgg Ousmane Sonko mais upp baax na ci laax bu tàgg mais tekkiwul ni nag Ousmane Sonko dem de seenti euh, comment adresse TFM tekkiwul ni Ousmane sonk dem te TFM dama ni tekkiwul ni ñun dañu war a dem di delluwaat daan dañuy seetaan TFM parce que ñaari chose moo leen tax a tiit mooy public ba doon am amatul ko vie ba doon am amatuñ ko xam na ni sénégalais yi déglootunu leen parce que seen intérêt personnel moo tax ñoo nga xamante ni ak ñàkk a fay impôt bi nga xam moom la ñuy ñàkk a fay impôt ak ki nga xamante ni mooy sama patron ku mu àndal kooku laay àndal wala ku mu xulal ku nekk ma xulóog yow wala ku mu taxaw ku nekk ma taxaw la. te bi leen di jox licence dañ leen jox licence boo xamante ni sénégalais yi ñoo ko moom ñun dañu bokkoon si ñu doon xeex pour yu su Ndour jot teleem dañu bokkoon ci ñu doon xeex pour Youssou Ndour jot teleem. amul benn doo mës gis doo mës gis laa la wax ci wallu politik ñu ni wal fajiri ci bi la Sidi nekkee xaw ma nag doom ji parce que Cheikh Niass moom moom ndegam mi ngi ànd ak baayam bii nga xamante ni kenn xamul fii la bokk kenn xamul fee la bokk haulaay minulaay doo xam fii doo xam fale ndax moom léppam kar kartu addinaam la koy def toujours rek damay wax gars yi ni Cheikh Niass moom na ngeen teey ci moom bu baax a baax a baax a baax a baax a baax wax man maa wax loolu de man maa wax loolu waaw waaw waaye kon tekkiwul ni dañu war a retourner ñoom di leen seetaanaat déedéet daf ci am ñoo xamante ni bëgguñu réew mi te réew mi taxu leen jóg mooy genre télé yooyu mooy genre site ay leeral point net ñooñu bëgguñu réew mi te réew mi taxu leen jóg. mooy ay vacances journaliste yoo xamante ni comme ma Madiambal Diagne mooy ay vacances journaliste comme euh, Cheikh Yérim Seck ay façon journaliste comme Aïssatou Diop Fall ñooñu réew mi taxu leen jóg ça il faut le dire ñoom la ñuy am seen li li lijjanti ñoom bu askan bi yëpp deewoon xam nga ñoom problème bi lu mu doon mooy bu askan bi yëpp deewoon te ñoom ñuy dund ak seen vie normale xoolal sawa seen yoon ci laket loolu na dugg ci nopp askan bi tey damay bañ guddal mais dig naa leen rendez-vous incha allahu rabbi bu ci yàlla àndee dama bëgg gëstu information bi ba mu leer parce que joge yi dafa am ndekete dafa am lu taxoon mu génne Amadou Ba am lu taxoon mu génn Aly Ngouille njaay am lu taxoon mu génn Makhtar Sy am lu taxoon mu génn Aminata Touré am lu taxoon mu génn Umar Yum cinq gis nga joge yi non joge yu toj leen a toj leen toj leen ndax moom léppam dafa bokkoon ci mu doon def ci mois de mars bi allahu akbar waay waay waay waay a jaaraama fuuta a jaaraama bandiraɓe sehilaɓe fuuta fof a jarama e e e lumtinidi way noon la fuuta fof a jarama bandiraɓe sehilaɓe fuuta fof a jokka njal a jarama ha ah, a jarama yàlla xam na ni jërë ngeen jëf ah jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay mais loolu rendez-vous la dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat pour gën ko yaatal di am kontante bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm yal na leen yàlla defal jàmm yal na leen yàlla defal sutura bu réew mi dee soppeeku yal na buñ leen ko nettali te yal na bu nu séddale dara ci réew mi ci seen gannaaw yéen ñi ngeen xamante ni dëgg moo leen tax a jóg. dëgg rek ngeen di xeex yal na leen yàlla suturaal ba li ngeen di yuutu ak li ngeen bëgg ci réew mi yal na leen yàlla jox lu kawe seen njot bilay saydul wujudi alayhi salaatu wassalaam allahuma inni aqrabu min kulli garibun wa akramu min kulli karimun wa awjuda min kulli jawaadu wa aafazu min kulli aafisu wa lutfu min kulli lutfin bi xaqi eh, ismika ya eh. latifun allahuma latifun bil ibadi yarzaqu man yashaahu wa huwa alil azim allahuma salli ala sayidina muhammadin الفاتح لما أغلق والقاتب لما صبح ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستحيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم نجينا مع الناجين ولا تهلك ما الهالكين صفا سنا وملك داهما إمام مرسلين نسألك الموت على الإيمان imaani nasaluka al mawta ala al imaani nasaluka al mawta ala al imaan yal na leen yàlla suturaal yal na leen yàlla dimbali yal na leen yàlla yiir yal na yal na leen yàlla aar yal na ngeen mucc ci pexe bu bonu joxe ak ñi ko wër yal na leen yàlla muccal ci pexe bu bon bi nga xamante ni jóge ak waa këram moom la ñuy doxal ak képp ku ànd ak moom yal na leen yàlla muccal ci pexe jóge ak pexe waa këram yu bon yi yal nañ ci yàlla bokk yiir yal nañ ci yàlla bokk aar ñi nekk bitim réew yéen ñi ngeen xamante ni yéen la ñuy daraage ndax bëggu na ngeen def live yal na leen yàlla suturaal yal na leen yàlla jox lu ngeen di yóbbante seen njaboot guddi ak bëccëg suba ngoon ñi nga xamante ni dëgg la ñuy xeex ak patriote yi yal na bu ngeen taxawu ci buntu kër ñu bon ñi nga xamante ni bëggunu lu dul ku nuy reetaan ak ku nuy diri yal na leen yàlla bétteeg xéewal suba si ngeen yeewu ci daraja yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may nu wér may nu gudd fan ba it 2024 ñu mën a voter Ousmane Sonko ci daraja yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ziar ñëpp te di Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.